Gueye l'homme de la quatrième génération le deuxième tigre de Fass nga xam ne icône la dans le milieu de la lutte nekk légende moom it dinañu dab ci biir waxtaan ak yeneen ténor tey fii ñu toog Gris Bordeaux ci kanam le président de lutteurs en activité moom it dina fi teew nekk ndaanaan nekk le troisième tigre de Fass ànd ak ñoom Eumeu Sène ñoom Tapha Tine ñoom Bombardier tous les VIP du Sénégal ñu ngi tey ànd ak ñi nga xamante ne nii tey jii ñoo ki fii ci biir salle bi di wane seen vraiment euh, colère di wane seen jàppale ci ki nga xamante ne nii mooy le président Malick Ngom nga xam ne damay wax ne lii ko dal àddina kenn rek lañ ko gisoon mu dal ko muy le président Ousmane sonk ñëpp ne moom la kon tey suñu xel dal na sunu yaakaar bi gën a dund ba tax moo tax tey ñëpp am mbégte daje fii waaye li ci gën a am solo. muy les lutteurs en activité les VIP ñoom gàkku deux ñu ngi fi xale champion yëpp ñu ngi fi mais ma jàkkaarloog Amar en face de moi l'empereur des arènes une légende madame la ministre l'empereur quelqu'un boo xamante ne ni à l'âge de 21 ans la renversé Yaxya Diop Yékini ci stade Demba Diop dégg daal di nekk roi des arènes di icône di koo xamante ne ni tey. bu ñu dee wax làmb bu ñu génnee Balla Gaye génn Eumeu Sène génn Modou Lo Bombardier Tapha Tine yaakaar naa ne làmb dafay jeex te ñoom ñëpp ñu ngi ànd fii ci salle bi pour vraiment naxaru li nga xamante ne nii noonu la làmb di doxee kon ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di jégalu ci wax ji xaw na gudd mais dama bëggoon leeral d'abord ñu toog ci salle bi di leen gërëm bu baax di leen sant ci teew bi ngeen fi teew waaye nag ñu bëggoon avant ñuy song wi ku ci nekk dinañ la may cinq minutes ci ñi war a wax mais avant ñuy soog waxtaan wi ñu jox sunu imam alaaji Max Mbargane mu joxol baaxum baaxum waaw baaxum joxol baaxum jox non joxol baaxum joxol naa li ma la wax joxol baaxum baaxum joxol mooy borom jukki bi léegi sama baaxum ñaan. li mu baax dana baax de bàyyi ko rek. ah ci jur gi laa bokk de. waaw waaw parce que parce que yow. yow xel day fàttu gisuma la woon. yow yow yow xelam. ak ak ak ak ak waaye ci jur gi la bokk. yaa ngi noonu. àgg àgg àgg ko ñu ngi lay nuyu bu baax di kontaan ci yow moom it mu ngi fi euh, kon euh, président Bakhoum nga ubbi rek ñu ñaan bu ko defee euh, ñu mën a doon waxtaan. asalaamaaleykum wa rahmatulah. gouverneur général. moom mooy borom jukki bi. ñëw nañ ni. léegi sax ñu nuyu assistance bi yëpp wax rek sant nañu yàlla bu baax di leen di sant tey tubaab nit nag moom jullit moom yàlla moom la julli rek moom la ñaan ak yow. wallaay dëgg la. suñu ñaan bàyyi ko jënd jëlaat bi wax mooy nangu yàlla ñu nangu. ñu def fàttali yàlla mhm. ak salaf waaye Malick nii nga xam ne moom ko ñu def ñaan bisimilah nee na ñaan waaw ak salaatu bu waay man waaw ñu ñaan commencé ku ci jàmm mu jeex ci jàmm yàlla defal ñu ci ndam. te yàlla defal ci ndam loo xamante ne nii Malick Ngom dinañ ko élu président du CNG. amiin amiin amiin. raay doxalam. amiin amiin euh, jërëjëf ñu bëggoon def une minute de silence rek ci Tigo xaritu yaayam ak Brise de Mer bi nga xam ne dañu wàcc liggéey ñu ñaanal leen parce que ñoom it ci lañu bokk te yàlla dafa dogal ñu wàcc liggéey. ak ak sunu papa Gaston ak Serigne Modou Niang yàlla yërëm leen ci xare leen àjjana une minute de silence s'il vous plaît. am ñëpp rek. yéen yéen may nañ leen. waaw ñaar waaw may nañ leen. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf kon mbokk yi nag nañu door waxtaan yi avant muy guddi mais rek ci ñuy jël kàddu s'il vous plaît ñu gàttal mu bañ gudd parce que xam naa ne ñu war a jël parole bari nañ mais euh, vraiment bu gàttee rek ñëpp dina ci euh, bu ñu dee wax nag làmb gi nii toog làmb moom mu ngi nii toog dañuy jox kàddu gi rek euh, commencé ko ci promoteur yi commencé ko ci bàyyi Aziz Aly Ndiaye jox ko kàddu gi la. promoteur de l'année euh, nga xam ne bi histoire lamb déggee ak léegi li mu def ci lamb fan lay ñëw mu ñëw nii ah. na ñëw na ñëw. mu ñëw ci micro yi ah. na ñëw na ñëw. na ñëw est-ce que kon chaise boobu mënuñu ko bàyyi pour mën a wax ak yow kon chaise boobu marché nañ ko nañ ko nañ ko bàyyi. loolu du problème. nga xam ne ku war a wax rek. waaw damay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 di nuyu presse bi ñuy seet bi fi teew yëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant tey ñu ñoo woolu woon fii ci Cheikh Atia di nuyu borom Cheikh Atia di Ilimane di nuyu borom Cheikh Atia di Ilimane mi ñu abal fii tey bañ muñ fi def conférence de presse di nuyu nag ñi teew ci salle bi ñëpp di jiital ci nuyoo bi suma papa Basirou Babou di ko jox wàcc waayam bu baax a baax ak ñi mu àndal ñëpp di ay ménagère ku ci mel ni Max Mbergane ñu ngi koy nuyu bu baax vraiment teel naa ñu trop di nuyu Abdou Baaxum bu baax a baax a baax ak Papa Ndiaye Seras ak sunu grand Ndiouga ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Bëgg Fallou di nuyu Mbaye Diallo di nuyu nag suma mbokk promoteur yi fi teew ñëpp ku ci mel ni sunu grand Jax ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu Pape Thialis di nuyu Assane Ndiaye comme ni ko Raay waxee di ko nuyu bu baax a baax di nuyu Fouta di nuyu Bakary Yaram Aar di nuyu Mor Mbaye Ngéwal di production di nuyu Tafa Kañ mi fi teewal Kañ production bi ñu di yegg ak petit sunu frère bu ngeen ko gisul tey dafa am benn mbokk bu décédé léegi foofu la dem nii ak di fi ñi fi ñëpp ñëpp. di nuyu Balla Gaye 2 bu baax a baax ak Gris Bordeaux di nuyu Raye Ba tey waxtaan bi li ko waraloon lu simple la ministre bi dafa ñu woowoon semaine passée pour waxtaan di ko rafetlu nag ci waxtaan boobu parce que làmb loolu c'est la première fois moo am fii benn ministre la république ñëw woo waa làmb yëpp tànn ci ay kuréel bu nga tànn leen tànn ci presse bi kenn tànn ci promoteurs yi cinq tànn ci ménagères yi tànn waa CNG ñëw leen ñu waxtaan ngeen tànn kenn ngeen bëgg mu jiitale loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax di wax ne ay nit ñoo war a tànn ñan ñoo leen war a jiite bi mu ñu ko waxee nag bi ñu delloo suñuy biir kër ñu toog xalaataat waxtaanaat bu baax a baax ñenn ci promoteurs yi nag gis nañu def nañ conférence de presse ñuy rafetlu seen conférence de presse bu baax a baax parce que dama jàpp ni tey promoteur su fekkee da ni promoteur nga promoteur lañu parce que am nañu licence ñu ngi organiser Sénégal yëpp xam nañ ko jàpp naa ni waroon na baax ñu di seen téléphone woo ñu téléphone yëgal ñu ne nañu diw de dañ leen woo woon pour ngeen ñëw ci conférence de presse xam lan la ñuy xaar suñu avis mais kenn woowuñu kenn defuñu dara jàpp télé bi ngay seetaan rek dégg ni woote nañu te booy wax waxoo sa tur ci turu promoteur yi ngay wax ne ñun promoteur yëpp kon ñun ay lan la ñuy wooyee suñu bopp kon ay nit toog ci benn ruq woote seen plateau ne ñun promoteurs yi ñun ménagères yi ñun nangam te ñëpp dajewuñu loolu day créer ay problème su ëllëgee bu ñuy woote ci turu promoteurs yi dañu war a woo promoteurs yëpp soo mënta woo ñëpp nga dem sa ruq nga def sa conférence de presse woote sa turu bopp rek ne man waa Alburaax nangam ak nangam mais bul wax promoteurs yëpp parce que soo ba léegi nit ñu ngi woo ne yow nii nga àndal diw nga àndal ñu leen moo leen ko wax ñu ne diw moo ni ñun yi loolu bokk na ci lu waral jotaay bi moo tax nag ñenn ci promoteur yi ñu ñuy toog sama wet ku ci nekk di nga jël kàddu liñ ci war a wax nga wax ko ci man en personne li ma concerné man bàyyi Ndiaye maa ngi ànd ak Malick Ngom loolu leer na nañ man maa ngi ànd ak Malick Ngom bu dee kon élection la suba moom lay votel ku mu mën ministre bi suñu waxaatoon suba ñu war a delluwaat xaw ma dinaa dem xaw ma keneen ay dem sama tur ca kaw man Malick Ngom lay voté beneen bi ci topp kuréel yi dañoo bari tey gis nañ fi ay association promoteur yu mat 4 wala 3 am na ñoo xam ne bokkuñu ci benn association man mii di wax ak yéen bokk ci benn association kenn jiitewu ma man sama association bopp laa yor man kese maa ànd ñii toog tamit ku ñu jël kàddu nga waxal sa bopp man ànduma ak kenn ci benn promoteur maa ngi yor sama licence di organise am sumay xarit ay association yooyu man ñoom la concerné ku nekk si li nga jiite nag ñu ngi la koy nangu di la ko accepté waaye en tout cas daal alburax bokkul ci benn association taawaa alburax maalim ngom la ñu àndal jërëjëf. yaakaar naa ne gaañ yi eh, gaañ yi gaañ yi loolu yaakaar naa ne leer na. kon donc Albourakh Baye Ndiaye jiite ko ñoom ñu ngi ànd gars yi s'il vous ñoom ñu ngi ak.